ñu gis tabaski bi euh, mariés yi danoo sonn ndax euh, fi mu ne problème mu xar waaye mu mel ni célibataire yu góor yee gën a sonn ndax seen ndaw yi it ñëpp fi mu ne ñëpp a jombi fi mu ne nii léegi est-ce que tamit tabaski toll na nii toll toll toll na fa xam nga yéen ñii ku ci yorul jabar tabaski sunna la ci yow. xale bu jigéen bi amul jëkkër sunna la ci moom sa doom yu ndaw yi sax sunna la ci ñoom buñ ko mënee bu dee seen turandoo may na leen xaalis nga jëndal leen xar sa jabar sunna la ci moom sa papa ak sa yaay la ci moom waaye su ngeen demee ba famille bi yow bëgg sa papa amu ko sa yaay amu ko sa jabar amu ko sa doom amu ko yow bëgg Bàmba yow rek rek rek la yàlla may xar yéene leen ci ñoom ñëpp rendi benn xar su ñëpp amee moyen jënd na ñëpp rendi def ndigalu yàlla man ndigalu yàlla duma ko bàyyi man Iran non chaque année danaa joxe xar yu bari ci sama wàll chaque année xale bi ma nekkal Saliou mu ngi nii moo ko yóbbu kenn mayuma ko sama radi ji may jaay ak sama galaas ci lay lijjanti lu ma ko jënde jarul xoolante maa la ko wax xam nga ndey xadi bi joué Ibra Italie maa koy jox xar at mu jot waxuma ko pour siiwal ko waaye dama ko wax pour dëggal si ma wax kii yee ko koy yóbbul man lu tax jox daaw xam nga lu tax li ko dal AVC la je crois moo ko dal <laughs> mm. bi ma koy xam beeka la yoroon gëj naa ko gis ti dama ne sama oto rek jógee conférence di wax ci théâtre que di ni leen war a jàppale ma ma ne man daal man dama gëj a gis ay sën gëj a gis ñoom yaay mbayan di lim ñooñu Pape Fofana ne man ki joué Ibra Italie dafa feebar ma ne ko kan la mu ne man day xadi la tudd ñoom laa njëkk a yónni ci moom man suis comme ça man xam naa Iran Iran xam na boppam tabaski noonu la tëddee gis nga marié non marié ci yam bi ci des Elhadji Gueye gannaaw daawul tabaski ba yàlla may ko jabar mu commencé tabaski su indee xar mu neexul jabaram mu ni ko génne ko ci biti parce que yow sa jabaray sa yàlla avant sa jabar daawoo tabaski sa jabar ñoo nga doog a wut xar moo tax boo indee bu ko neexul mu ne la na xar mi génn ci biti waaye demal ca biti nga dem wëriwaat indi xam nga xar muy meem mel ni ku ñu xoj meem la comme nodd ko di naan ayal salaa ayal salaa laakbar laakbar mooy lan yow nga topp àdduna ba àdduna soof la nga bëgg a topp yàlla kon ñëpp war a wut xar eh, bëgg bàmba nañ góor góorlu xar yi seerul Seydi Abubakar nee na loo am njëgam seerul dëgg loo am njëgam seerul xari seeruñu aussi méttiwul xam nga lu métti tiitaru gi xaru 6 million loo koy tabaski te sa famille am na ñoo xam ne bu ñu añee du ñu reer bu ñu reeree du ñu yow soofoo donc loo leen ko séddale jël 300000 jënd ci xar wala 250000 nga jënd xaru 6 millions xar mi bajantu nga ñëw gaare nit ñi wër la di la seetaan loolu nga ca bëggoon allazina hum yuraawuna ngistal la bëggoon ngistal na alors que nañu bàyyi yooyu rek te góorlu voilà macha allah mu doon ay kàddu yu am am solo ah. yaakaar naa ni combaan li nga xamante ni tey amoon nañ ko ci ay laaj rek ah. yi séddoon nañ ko ak oustaz mu indil ñu si li nga baax li nga xamante ni moo di ay leeral mais ñu tëjee benn point bi nga xamante ni tey moom laa bëgg rek ñu tëjee ko oustaz gis nañ ni keroog euh, ministre de la santé génn li euh, li nga xamante ni moo di mbas mi mi ngi ci réew mi ba tey sénégalais na euh, keroog am jàngat bi nga xamante ni jàngat nañ ko ci président muy dafa def li nga xamante ni mooy tournée économique ba pare soogee déclaré li nga xamante ni moo di troisième vague ndax situation bi Sénégal di dund loolu loolu mën nañ ko fi woote waat fu ne nii. Macky Sall Abdoulaye Diouf Sarr bi ku mu neex ku ku mu mën a doon sëriñ si nañu wax lu leen neex mais yàlla bu fekk yàlla xam na lépp doy na gudd gàtt daal yàlla xam na lépp gudd gàtt yàlla daal xam na ndax moom wàcce na fi feebar walla wàccewu fi feebar man duma ma déglu waxu nit damay natt sama borom jarul coow kii nee na am na ñii ne amul ñii ne am na ñiine amul yàlla mi moom lépp ndar képp lépp yéen ñii toog xam ngeen lu xew seen gannaaw wax leen yow mii toog sa gannaaw xam nga lu fi ne waa ndem fii nga xamul li sa gannaaw nooy xamee lu yàlla dogalul lum dogalul bàyyi leen coow li bàyyi yàlla mbir yi wa illallaahi lu ci topp ah. yàlla nee na delloo leen ma lépp su coow amatee jox leen ma ko ci ne patt rek ngeen xool doyul li ma la tontu doy na de aka saf aka sappaaral macha allah oustaz laataa nga tëj rek dernier kàddu yi lan la doon rek ñu daal di tëj waaw man sama dernier kàddu xam nga lii benn saag la yëkkati ko tuuti rek saag bi si ngeen ni mu rafetee de ki ma koy yónni mm-hmm. daaw jéeg fale la ma yónni woon tàndara ma njum bayal boppam yónni ko taalibeem fala xaritooyam tàndara ma mu may ma ko ma bëgg ca lool mu ni ma dafa am montre bu ma la jënd la su ma sañoon nag nga jot ci ma ne ko dinaa ko jëlsi daaw jéeg daaw ba fan yii mu tolloog mercredi mercredi bi passé mooy ñaata fan mooy la sept la sept ku ñuy wax xaadim wooma ne ma kilifa gee la soxla ma ne ko jox ma ko muy sëñ Modou Kara Noreyni mu nuyoog man ne ma bàyyil ma jox la soxna si boo paree ma jëlaat la mu jox ma soxna ji samay xarit lañu soxna Dieng gàmm yi may def Tiwaawan di ko gàmmul xale yi ñu tuddee ko ko da ciy def sama enveloppe bu bopp bi mu pareeg man suñu wax mu jox ma sëñ Modou Kara mu jàmmanteek man ne ma ñett dee bëggoon naa ko bàyyi leen xel li may wax de ñett bëggoon naa ko nga defal ma ko jox la montre boo takk jox la lonet jaaxal nag man du may takk ko <laughs> jox yoo takk jox la xarum tabaski. moom sëñ Modou Kara. ñeme naa toog kii kii di ko fenal sëñ Modou Kara ko ñemee fenal <laughs> dama laa bëgg jox montre boo takk. jox la lonet yoo sol jox la xarum tabaski mu ne ma am naa ku nekk mbooro moo la koy indil xar mi ma ne ko baax na jërëjëf Mbàkke ñu coupé ba ñu coupé xaadim woowaat ma ne ma foone ma ne ko maa ngi Tiwaawan mu ne ma sëriñ bi da doon wax ñu xam foo ñu indil la ko ma ne ko Dakar kañ ngay ñëw dakaar ma ne ko samedi mu ne ma ban heure ma ne ci suba mooy heure bii ngeen ma jël si mu ne ma baax na ci tuuti mu oowaat ma ne ma sëriñ bi nee na mu ngi yebal ñu jël oto fekk la Tiwaawan indil la ko kii sëñ Modou Kara Sadiq moo ko indi ak rakk soxna Dieng bu góor muy lii man nag damaa garaw teraanga duma ko nëpp de man géwélu teraanga laa man Iran mais nag non stress de non souci non souci c'est Iran c'est montre baa ngi bii la ma jox ma defal ko ko nii dana am ko naan ñaari montre yu nag waaye yow doo nitu dara bii wane la mm-hmm. bii takk la mm-hmm. bii la ma sëñ Modou Kara jox rafetul ah. mu teg ci noonu naa ko danaa ko takk ba nga gis ko mm-hmm. mu ngi nii sëñ Modou Kara mu ni ma dina ma bëggoon jox lonet yooyu sol yéen a fi gën a soof nag ma ne ko danaa ko sol ba nga gis ko man du ma fen du fen mukk ci àdduna maag yàlla rek naay su. man la man la gën a jàpp. lu ngeen lu ngeen ma gisee. man la man la gën a jàpp oustaz. ay eh, waaye Sidi bu ngeen di dem di ko dugal dama leen di laaj ndax sëñ Modou Kara Nooré mi rafetu macha allah rafet na lool na de macha allah kii. trop kii. Hmm. man la ko jox. caméraman kàccoor nag. gis naa yi muy def. Hmm. waaye gis nga ko. moo ma ne. dama bëgg nga takk sama montre sol samay lonet tabaskee sama xar moo ma ko sant ma ne ko dinaa ko sol dinaa ko takk takkuma ko mu ngi nii de mu ngi nii de lii la ma santoon ma def ko jërëjëf kontaan naa ku ne xam na dem leen ci net bi ngeen xool waaw sama digganteeg moom mhm. yu bari xew na fi ma taxaw mhm. moo ma sañ seen nii de neexu leen. macha allah seetal caméra bu macha allah voilà voilà. <laughs> jërëjëf macha mu doon kàddu yu ama am solo ginnaaw bi mu. waxee teraange gi nga xamante ne moom la ko sang boobu defal Mbacke Balla ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar waaye di nuyuwaat bu baax doomam jooju di sëñ Ahma Mbacke moom it ñu koy ziar bu baax a baax a baax Mbacke Balla ay sa buri mbokk yi di kontaan bu baax a baax a baax ci dajo bi nga xamante ne nag jàkkaarloo woon nañ ko ak Oustaz Iran Ndaw ci beneen numéro jërë ngeen jëf turam wër na àddina ndax ay lay doon baax lool ci góor gu tële ba góor gu gaaw a àgg résultat bi di jonni jonni bi mu ñëwee si mim réew ba léegi kër yëpp a neex ngir nga am ko la gaaw si numéro téléphone bii di 77 734 26 67